tey ñu daje woon fii euh, doon euh, euh, lancer le projet la le concours benn concours bu nga xamante ni ngir mën a xool jeune mooy ndaw yi nga xamante ni am nañu ay idée de projet innovant mooy idée xalaat yu bees ngir fexe ba suñu mbay ñu mën koo jëmale ca kanam ci kaw ñuy utiliser li ñuy tuddee technologie mooy xarañte yu bees yi ndax comme niñ ko xamee euh, tey amul benn secteur bu mën a développé te doo utiliser li ñuy wax technologie donc loolu moom moo tax euh, euh, ñu am benn concours bu ñu xamante bi mooy suñu ñetteelu at ñu di ko lancé te ci concours boobu ñu ngi ciy def cent vingt cinq mille dollars nekk war a toll ci quatre vingt millions bu nga xamante ni dañuy organiser concours bi wër Sénégal fépp pour jeunes yi nga xamante ni am nañu ay xalaat yu bees ci naka lañu ñu mën a soqalee agriculture bu ñu nee agriculture nag sàmm mi ngi ci mbay la ak ak ak pêche napp bi donc yooyu yëpp donc bépp projet bi nga xamante ne daal euh, gis nañu ne lu lu lu lu yees la te mën a euh, am njeexital ci mbay sàmm ak napp donc ñooñu dinañ leen détecter mooy dinañ leen gis fexeel xool naka lañ leen di jàppale ba seen euh, xalaat bu bees boobu naka lañ koy yaatale ci biir Sénégal ba képp kuy producteur wala képp kuy baykat sàmmkat nga mën cee jariñoo critères yi euh, pour nga mën a bokk ci concours boobu mooy da ngay nekk euh, ndaw bu am ci diggante fukki at ak juróom-ñett dem ba euh, fanweeri at ak juróom loolu benn la mais projet bi ngay proposer aussi mu nekk projet bu nga xamante ni projet bu bu bees la bu nga xam dafay utiliser li ñuy wax technologie ak innovation mooy lu bees lu xamante ni daal Euh, dañ ko mën a jëfandikoo ci mbay ci càmm ba nga xamante ni que ça soit baykat wala sàmmkat dina ko mën a jëfandikoo pour mën a yokk mbayam wala mën a yokk euh, euh, sàmmam ñetteel bi aussi mooy mu nekk loo xamante ni bu ñu ko jëfandikoo fii Ndakaaru dina yomb lool aussi ñu mën kaa jëfandikoo Kédougou Tamba wala maatam ren ñi ngi fas yéene jàpp lu mat juróomi projet donc juróomi projet yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a xarañte ci wàllum euh, innovation mooy ci xalaat yu bees mais aussi ci wàllu lu xamante ni mën nañ kaa jëfandikoo facilement mooy la réplicabilité donc euh, juróomi projet yi daal moom la ñu bëgg euh, tënk nga xamante ne dinañ leen woo final bi aussi ñu ngi koy def le mais mai fële ca Radisson donc ñu ciy invité partenaires yëpp nga xamante ni day nekk bésum agriculture mais bésum innovation ak technologie ngir suñu mbay suñu sàmm ak suñu napp mën a jëm ci kanam. finaliste bi ñu ngi koy jox euh, juróom benn million donc euh, ki topp ci moom ñu jox ko ñeent ki topp ci moom ñu jox ko ñaar ñaari mujj ko ci nekk ñu jox la cinq cent mille te loolu c'est juste benn montant bu nga xamante ni pour ñu mën a goganti wala ñu mën a jeexal seen idée de projet wala seen start-up mais ci ginnaaw loolu Xayfa da nekk ci ginnaaw di leen accompagner ci ay xel ak ci ay facilité pour que njeexital bi comme ni ma koy waxee saa su ne mooy innovation boobu wala projet boobu mën a am njeexital ci éleveur bi wala agriculteur bi. di am contentement bu baax si fekk si bin fekk si waa Xayfër si seen euh, ji programme bi nga xam ne def nañ ko si waxtaan képp koo xam ne euh, journaliste nga ngir ñu mën a jàllale loo xam ne benn information la si jeune boo xam ne. am nga lu ñuy wax benn jeexital ci projet nga mën a ñëw nga partager ko ak ñoom ñu mën laa jàppale nga réaliser ko man maa ngi wuyoo Serigne Fallou Dieng nekk ingénieur agronome nekk ki nga xam ne moo bokkoon ci startup bi gagné woon premier prix bi concours bi amoon daaw te tamit prix boobu biñ ko gañee nekkul prix boo xam ne dañ ko gañee rek toog dimbali nañu bi ñuy dem benn xam-xam bu bees lañ yóbbu woon benn xalaat bu bees xay fa dimbali nañu ban gën koo ñoŋal ba mu nekk loo xam ne entreprise bu taxaw la ban ci liggéey ak ñeneen ñoo xam ne bokkuñu ak ñun ba ci recruter suñuy moromu jeune di leen wax ne rek concours bu am solo la bépp goo xam ne xale bu góor nga te am nga fukki at ak juróom-ñett jàpp euh, fanweeri at juróom xay euh, fa jox na la opportunité nga mën a dem yóbbu fa sa xalaat nga partagé ko ak ñoom te di nga mën a gañee mën a bokk si ñi nga xam ne innové nan participer si li nga xam ne mooy ñongal suñu wàllum mbay ak suñu wàllum sàmm. waaw concours bi changé lu bëri si si suñu dund ndax biñ koy def boobu ay étudiants lañ dafim ne ay ingénieur lañ leen li si topp mooy bañ gagné concours bi xay fa dimbali nañu ba jox ñu benn somu xaalis boo xam ne te sax loolu moo gën a tuuti si lim ñu defal ndax somu xaalis boobu permettre nañu ñu jël li nga xam ne xalaat la woon ñu def ko loo xam ne lu nekk la fi mu ne euh, pastole lu nekk la bañ commencé di dem si producteurs yi si éleveurs yi di commencé tester suñu produit leneen li ci topp mooy avant ngay gagné concours bi am na ay formation yu lay defal loo xam ne une semaine la ngeen nekk si ay ay ay jotaay comme yu mel nii ñu indi la ñoo xam ne ay jàngalekat la ñu lay jàngale noo war a ñoŋalee sa xam-xam noo war a ñoŋalee idée bi ba nga xam ne même boo gagnéwut concours bi le fait que yow participer nga si dina la jariñ ba yeneen ak yeneen di nga ci participer boole nañu tamit ak ñoo xam ne ñoo ñu jàngal ban xam nan la ñuy yore start ndax mën la jox sax ay millions doo xam noo koy jariñoo képp koo xam ne jeune nga ñu lay wax ne loolu moo nekkoon njariñ bi te yaakaar naa ñu état war a jàppale lan ndax li ñuy def nii état la waroon kon bu ñëwee di ko def di ñu jàppale te tamit fi ñu koy def fu am solo la mooy secteur primaire moonaam naam wàllum mbay ak wàllum sàmm ak li nga xam ne mooy napp gi te nga xam ne moom mooy développer réew mi